jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bi ñu leen di yoo dal leen ak ci seen i actualité du jour ñu dooree ko foofee ca diwaanu yëmbal quartier bu ñuy wax Bamba Diallo ak yi nga xamante ne nag moom mooy Deye Thiaw ay atam ci 28 ans la toll dafa jam boppam paaka jële ci ñàkk bakkanam lépp nag mi ngi tukkee ci ay xas yu ko membre famille yom doon xas jëmale ci téléphone yaayam nga xamante ni daf ko teewoon di ko manipuler bu ñu sukkandikoo ci les échos mi joxe xibaar bi papaam ay tantaam ak i magam xas yi ñu ko xas looloo ko metti waral moom mele di dee caw mu daal di am gàcce daal di dugg ci biirub néegam nag ci la génnee paaka daal di koy jam boppam ci biir ba mu génnee ci la daal di daanu ci suuf deretam daal di koy wàll si ñoom ñi le sax jëm nañoo arrêté li nga xamante ni moom mooy hémorragie bi laata ñu ko embarqué yóbbu ko hôpital foofee nag foofu la mujjee ñàkkee bakkenam moom dee caw jamono ji daal dina ci ubbi ab l'enquête ba njabootam ca diwaanu Ziguinchor juróom benn nit ñoom ñoo fa ñàkk seen bakkan ñoom ñi le nag dañoo jóge woon sax seenu dëkk daal di dem ci beneen village bu nekk foofee ca Kajandu ngir jullee fa ji waaye ginnaaw bi ñuy wàññeeku ci la charrette bi daal di jàll ci mine bi juróom benn nit ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan am na juróom itam yu ci am ay gaañu gaañu yu méttee métti ñoom ñi le sax ñu ngi leen yóbbu hôpital régional bu Ziguinchor ci li ñu xam ne ci xibaar nag boobu le mine ñàkkul bañ ko fay teg lu yees a yees la ndax ay fan ci ginnaaw am na patrouille armée bu fa jaaroon ba daal di sécuriser lieu yi jamono ji mbir mi daal di nañ ci ubbi ab enquête teg ci di ko toppandi ba xam boobule min kan moo ko daal di teg foofu taximan bi di wuyoo ci turu Khadim Diop niki démb nag lañ ko doon àtte foofee ca tribunal d'instance bu Dakar moom mi le nag bokk na ci li ñu koy euh, toppee ni dafa séquestré benn xale bu jigéen moom ci boppam mineur la mi ngi wuyoo ci turu Adien rax si dool li daal di koy euh, sàkk ba mu ci jëlee ab euh, ëmb moom Xaadim Diop mi le nag ay atam mi ngi tollu ci 38 bàyyeekoo foofee ci diwaanu Touba Mbacké ci li ñu xam ne nag ci ay xibaar ni mu xamante xale bu jigéen bi benn xaritam moo ko booleeg moom ci la kii di Adien daal di jël numéro Xaadim Diop daal di koy woo wax ko nekk dafa bëgg a ut liggéey foofee ca diwaanu Dakar ci la ko ko Khadim Diop nangul daal di koy wax nag na jógee dëkkam ñëw foofee ca Dakar ndax am na fa ay place yu disponible dem sax ba koy dégg ni dina ko booleeg beneen xaritam bu nekk foofee ca diwaanu Liberté 6 moom mi le nag di Adien ci la daal di defaree bagage am ñëw Dakar waaye ba mu egsee li ko Khadim Diop xamal mooy place bi mu ko réservé loon dafa am keneen ku ñu ko jox ci la ko daal di proposé nag mu daal di ñëw dëkk moom ci ab néegam une semaine temps muy koy wutal liggéey liggéey ndax moom Adien amul benn mbokk foofee ca diwaanu Dakar xale bu jigéen bi ginnaaw xamul na muy def nag mu daadee nangu proposition kii di Xaadim Diop bi mu toogee ci këram lu toll ci fukki fan ak juróom loolee lépp kii di Xaadim Diop mi ngi ko doon yegg ci uh, kawam ba mu amee liggéeyam nag taxul benn yoon moom Xaadim Diop mu daal di bàyyi kii di Adien daf ndax ko doon forcé uh, chaque quinze jours mu daal di ñëw ci këram uh, su ko defee mu daal di moom la muy sekk moom moom xale bu jigéen ma nag ak ëmb moom la ci daal di jëli moom Khadib Diop ci lañu ko daal di tegee loxo defeere ko parquet ba laata sax ñu ko placé sous da de dépôt foofee ca kaso bu rëbës dem nag ba ñu ko yobboo ci kanamu tribunal bi liñ koy tuumaal moom mi mile daf ko weddi ba mu set moom taximan bi nee na juróom benni fan ci weeru ut aajee daf ko woon ni ko dafay ñëw dakaar ba mu egsee nag daf ko wax ni dafa sonn te mënul woon a commencé liggéey bi ca saas ya ci la ko héberger néegam une semaine nee na moom mi la sax ci biir taxem ci la doon euh, nelawee euh, rax si dool li ni bés ba mu doon ñibbisi ci ab liggéeyam ci la dugg ci toilette yi nag euh, ngir sangu moom xaadim Diop nee na ba mu paree kii di Adien di xale bu jigéen bi ci boppam moo ñëw yee ko te ba mu koy yee solul woon dara moom xale bu jigéen bi ci la ko laaj atam mu ni ko 2001 la juddu nee na ci dooree yegg ci kawam te sax moom xale bu jigéen bi moom moo ko provoqué moom Khadim Diop loolu la xamle ginnaaw bi ko tribunal bi laajee nag ndax moom xale bu jigéen bi laataa moo jug jóge Touba prévenir nga papam wala yaayam moom Khadim Diop nee na deful euh, li ni mel lu jëm ci xale bu jigéen bi nag moom la mu xam ne mooy euh, kii di Khadim Diop bés ba mu tegee tànkam Dakar la ko commencé di euh, sàkku nee na sax ba ko annoncé lii di ab ëmbam daf ko wax ni rek bu mu ko yëgal kenn laata mu ko wax ni mu jël ay comprimé ngir yàq boobule ëmb moom xale bu jigéen bi nee na dafa bañ waaye kii di Khadim daf ko menacé di ko wax ni nak bis boo ko waxee kenn dinaa dem woo yaay wax ko ni dangaa am fréquentation condition yu bon fii ci euh, Dakar te ji nga jëlee boobule ëmb moom Khadim Diop nag ginnaaw tribunal bi bi ñu concerté woo dañu ko relaxé waaye ñu ngi sàkk ci moom ñu daal di koy daan juróom benni weer yoo xamante ne daf koy tëdd kaso ràpp ñoom ñaar ñi le rek seenub affaire ñu ngi ko fas yéene jugé 25 octobre bi ñu man kii di DP ak EC ñoom ñaar ñi de nag ay étudiant lañ doon génn waaye seen relation fa mu mujjee neexul ndax ki nga xamante ne moom mooy ko góor ki ginnaaw ay photo intime yu mu yor ci kii di ab euh, coroom daf ko ko doon euh, chantage ngir mën a sekk ak moom saa yu ko neexee euh, moom mi di xale bu góor bi nag ci lu ñu xam ne ci ay xibaar bokk na ci li ko gën a metti ba muy def loolu xale bu jigéen bi dafa rek daal di koy bàyyi boobu la séparation nag moom mënu ko woon wannaasu benn yoon xamante ne nii ak vidéom ñoom ñaar sekk nañ ko di ko ko chantage ngir daal di koy publier ci réseaux sociaux yi loolee nag lam ca jublu woon mooy saay bu soxlaa xale bu jigéen ba mu ñëw daal di sekk ak moom euh, lu ko neex xale bu jigéen ba nag ba mu sonnee ci yëf yi euh, ci la dem daal di koy yóbbu ci kanamu yoon porté ko plainte bi mu taxawee ci kanamu baar bi nee na moom xale bu góor bi dafa jël sax yooy le photo daal di koy faf envoyé ñi nga xamante ñooy ay parents am ak i mbokkam ndax moom xale bu góor ba la xale bu jigéen bi daf kaa trompé te nee na loolee dara du ci dëgg moom xale bu góor ba nag ba mu taxawee ci kanamu baar ba nangu na ni loolu lépp moom moo ko def lim ci jublu woon mooy récupérer moom xale bu jigéen bi daal di koy garder pour moom kese ndax ko woon a bàyyi mu dem kii nag di euh, Lopez nekk ab corom ginnaaw bi ko tribunal bi laajee lan la bëgg réclamer moom dani sax bëggul lenn ci dommage ak i intérêt dafa bëgg rek kii di DP Anspelo daal di koy bàyyi moom mi nag dañu ko reconnaître sax coupable daal di koy daan ñaari atu yoo xamante ni daf koy tëdd rap jëmale ci collecte illicite illicite de données ak détention d'images contraires aux bonnes mœurs. diwaanu Saint-Louis ñaari nit ñoom ñoo fa ñàkk seen bakken ginnaaw ak accident bu fa amoon niki démb ci diggante Mpal ak village bi wax euh, Fass Ngom benn po bus moom la ñu wax moo mbëkkante ak benn po oto bu ndaw marque 406 chauffeur bi lee ak bi newoon ci boobule oto ñoom ñaar ci saa si ci lañu ñàkk seen euh, bakken bu ñu sukkandiku sax si adjudant Biram Kayre moom mi lee mi ngi nekk ci cinquantième compagnie bu sapeur pompier yi nee victime bu jiitu bi mu ngi ko génnee bi ay sept heures di jot ñoom ñaar ñi de nag choc bi dafa métti métti trop ci ñoom ndax dañoo bëkkante ci kanam li mu xam ne itam bokk na ci kii di chauffeur bus bi daal di nañ koy euh, teg loxo rax si dool yi daal di ubbi ab enquête ci boobule accident ngir situer responsabilité yi mbokk internet yi fi li ñu yem ak yéen tey ci seeni actualité du jour jox leen dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen xibaar jaa ngeen jëf